dubitatif ñi nga xam ne euh, wóolu wuñu woon trop dialogue bi te nekkoon ci mbedd mi mhm. tey jii nii ndax mën nañ wax ne mën nañu gis seen bopp ci li nga xam ne yéen décidé ngeen ko parce que mhm. euh, voilà ba tey les détracteurs ñi doon critiquer dialogue bi mhm. fi ñu jàppoon rek mooy que ne c'est c'est une bande d'amis dama koy faral di wax yoo xam ne euh, ku ci nekk am nga lu la yitteloon ñoom ñoo retrouvé wu voilà maintenant ñi si biti ñoom ils étaient pas concernés et tey jii est-ce résultat yi joxu leen dëgg mais yaakaar naa ne résultat yi ñoom bu bu ñu xoolee résultat yi ils doivent se rendre compte de évidence bi mooy lan mooy que dialogue bi permettre nañu ñu poser ay avancées ma jox la exemple ci parenage bi. Mhm. parrainage moment bi ñu koy indi opposition bi dafa taxaw mu ne parenage bii de buñ ko dindiwul ñun duñ dem élection te rewul dem nañ élection. Mhm. Euh, beneen bi mooy bis bi nga xamante ni dañu dàq liste bi nga xamante ne mooy Yewwi Askan Wi si législative yi. Mhm. dañu ne buñ ko deful élection du fi am élection am na. ñu jàpp que ni nag dialogue bi permettre nañu ñu résoudre ay cas yoo xamante ni cas yu patente la ñun taxaw Sénégal amuñu problème parenage parti démocratique sénégalais bi fa nekkoon amul problème parrainage mhm. euh, je pense que ne la majorité amul problème parrainage mhm. mais aujourd'hui on Pastef aussi amul problème parrainage Pastef amul problème parrainage mhm. PUR amul problème parenage mais si opposition bi yaakaar naa ne am na ñu am problème parrainage et donc ci biir je pensais plus au plus grand parti euh, ci ñi nga xam ne ñu ci dialogue bi muy Pastef maanaam leur leur situation lan moo ci soppeeku positivement ci dialogue bi. non du ñu ko poser en terme de parti dañ koy poser en terme de revendication yi nga xamante ni opposition dañ ko. porté on sait tous que l' opposition parti tolloowuñu doole am na opposition boo xam ne dañuy créer nii rek avec les loups mais on sait tous que duñ dem fenn. mais xam nga xam nga ñun. opposition la du parti yi ñoo doon pole opposition la. d'accord dañuy xool quelles sont les préoccupations de l'opposition yi nga xamante ni ñun ñëpp ñoo euh, ñun ñëpp ñoo bokk di revendiquer li nga xamante ni moom mooy parrainage. oui euh, F24. aujourd'hui lan la porté woon que ni comme revendication mooy troisième mandat du fi am. Mhm. lan la porte woon comme revendication ñi ñu xañ seeni droit ne ñu def de telle sorte que ne ñëpp bokk. lan lañ porté woon comme revendication mooy ñi nga xamante ni dañ leen jàpp mhm. lan lañ porté woon comme revendication mooy ki nga xamante ni dafay organiser élection bi mais lan lañ porté woon comme revendication mooy parrainage bi du si point yëpp am nañ ci accord mhm. mais si parrainage bi dañu dañu am ay avancées non seulement wàññi nañ nombre bi nga xamante ni moom lañ doon demandé mais introduire nañ li nga xamante ni moom mooy parrainage citoyen euh, parrainage par les élus mhm. et ce parrainage par les élus dafa am impact impact bi mooy lan mooy que parti yi nga xamante ni mën nañ ko bu ñu recourir à ce parrainage dina permettre ñeneen ñi am benn masse bu mag boo xamante ni dina leen permettre ñu matal yemuñu foofu ñu ne dañu gisoon ne am na ay risque de doublon mhm. ñu ne pour éviter doublon yooyu di dal ci par a par par la force si yenn candidats yi nañu instaurer li nga xamante ni moom mooy tirage au sort cela veut dire que ki nga xamante ne élection yële passé dañ ko éliminer parce que dafa bëri woon ay doublons bu ñu defee tirage au sort il peut sortir premier. Mhm. et par conséquent mën na jàll d'office. Mhm. Euh, beneen bi mooy que am mécanisme boo xamante ni moo ñuy permettre ñu contrôler li nga xamante ni fi jàlloon ku ne mënoon naa bañ a jàll parrainage. parce que xamuloo nan lañ doon contrôler parrainage yi. Mhm. tey bi ñu demee li ñu d'accord mooy que au-delà conseil constitutionnel dañuy mettre en place benn comité commission boo xamante ni dañ koy ubbi. ci ñi nga xamante ne ay personnalité indépendante lañ mais dañ koy ubbi si ay techniciens yoo xamante ne dinañu mën a permettre ñu mettre en place benn système de contrôle boo xamante ne bu transparent la mm-hmm. donc je pense que ne loolu yëpp ay avancé la mm-hmm. si caution bi tamit ñu bañ mu nekkaat filtre ñu ne caution bi dañ koy yamale trente millions dootu ko weesu mm-hmm. et pour man aujourd'hui yooyu c'est des avancées yoo xamante ni jot nañ ko ñaareel bi mooy tey ñu wax ko ñu bañ ko wax Khalifa Sall ak Karim Wade toute l'opposition réunie mhm. y compris ay nit ñu nekk ci pouvoir bi d'accord nañ sur une chose mooy que ne politiquement lañ leen xañoon seeni droit et donc ñun on se dit que ne puisque de façon arbitraire puisque de façon unilatérale le pouvoir avait pris la décision de modifier un code consensuel ñun ci biir waxtaan dinañ defaat de telle sorte que ñooñu retrouver seen ay droits sans pour autant nit gaañu fi sans pour autant nit dee fi mhm. donc loolu pour man c'est des avancées mhm. c'est réparer une injustice boo xamante ni causé woon nañ ko et aujourd'hui c'est ça les résultats ah, du mais réparer une injustice est-ce que avancé la est-ce que lu dañoo dellu rek fi nga xam ne waruñ fa woon a jógee li ma bëgg wax mooy yéen waa taxaw Sénégal wax nga ko euh, yi euh, xëy na yéen a ngi koy jàmbat mais ñu nañ loolu du problème réellement mhm. euh, maanaam bi ngeen dem ci dialogue bi est-ce que du point yi bëri woon na mais bi leen ci intéressé woon dëggantaan mooy rek ñu rétablir leen seen ay droits. ñun démocratie moo ñu intéressé et boo nee démocratie da ngay wax naka la ñuy def ba élection yi ñu organiser ko en toute transparence sans mu am ay bedd compté sans mu am nit ñoo xamante ne dañ leen di tere ñu bokk. Mhm. et loolu pouvoir bi daf ko def à plusieurs niveaux ñenn ñi dafa utiliser woon justice pour xañ leen ko ñenn ñi dafa utiliser woon parrainage pour xañ leen ko. ñeneen ñi dafa utiliser leneen tey loolu yëpp la ñu dajale ñu ne nañ ko waxtaanee ba lépp loo xamante ni filtre la boo xamante ni pouvoir tegoon na ko fi en 2019 filtre yooyu ñu fexe ba dindi ko et je pense que ne loolu mooy revendication non pas yi taxaw Sénégal am moomal ko boppam mais revendication la yoo xamante dañ ko bokk ak toute la classe politique la classe politique waxul leneen lu dul li ñu yóbbu si dialogue mhm. mais lenn moom ma ci xaw a jaaxal ba tey mooy euh, par rapport ak euh, point yi ngeen déggoo euh, ci ci dialogue bi lu ci bëri président da ko waxoon avant même dialogue bi di commencer maanaam boo seetloo bi muy def lancer un appel aux opposants il avait dit parrainage bi mën nañ ko waxtaanee doon te président tudd ko yooyu tey jii nii euh, déggoowu leen ci benn yoon et ça tamit nekku leen dugg leen ci piège ki nga xam ne mooy président Macky Sall comme ni ko ñeen ñu waxe woon dans la mesure où même teg nañ ko sur la table non non non xam nga ñun posé wuñu ko en terme de Khalifa Sall ou Karim Wade on a posé ko a bañ a xalaat en fait bi d'accord mm-hmm. d'accord mais aujourd'hui dafa am point yoo xamante ni mënul concerner xalifa Sall mënul concerner Karim Wade quand on dit que ne dans un pays démocratique Sénégal mhm. bu am constitution ratifier toutes les conventions liées euh, aux droits de l'homme ñu ne nit mën nañ sans pour autant une décision de justice prononcé ko ñu xañ la say droit ba abadan aujourd'hui par la force de dialogue par la force des discussions on est arrivé à la limitation de de de l'interdiction du droit de vote mhm. cinq ans la léegi au maximum alors que bu njëkkoon am nañu possibilité xañ la say droit de façon éternelle et je ne bu doon dialogue bi loolu rek la indi si résultat je pense que ne avancé la du point de vue des droits de l'homme parce que tamit ñun ay politique lañ mhm. ay démocrate lañ dañuy défendre les droits de l'homme et ça c'est une avancée significative mhm. c'est une avancée significative euh, wax ngeen li nga xam ne au nom de l'opposition Sénégal am na ko ci mais li ngeen amul aussi ak li ngeen di xëccool am loolu tamit est-ce que lu loo xam ne euh, dafa leen di gën a faagaagal li ngeen amul au nom de l'opposition mooy yaa ngi koy wax sànq mhm. euh, jamono ji mooy sa candidature ba foofu dara soppeeku fa. non la libération des détenus suñu sañoon am fa li nga xamante ni moom mooy euh, moom mooy euh, ndam. Mhm. malheureusement amuñ ko parce que li ñu opposé tamit mooy que. am na ñoo xamante ni dañu dañu dañu yàq ay bien jàmbur am na ñoo xam ne et cetera et cetera et aujourd'hui toll nañu mais ñu jàppee opinion nag loolu loolu c'est différent te bëri nañ ci non mais justement ñun on a estimé que dans un état de droit l'état warul xaar sax bu opposition di ko di ko convaincre mhm. pour mu bàyyi ñi nga xamante ni mooy ces délits de ñi nga xamante ni dañ leen jàppee pour délit d'opinion